nañu ko kon ñoom lu ci mën def nañ ko te ñun su ma waxee rek nga war koo gëm ku nga bëgg yaa ko am yàlla na la yomb ñoo nekk suñu électeur yi dafa fas nañ koy yónnee sànni ba foo ni fala rek foofa lay doon suñu bëgg-bëgg nag leen la ndax danoo bëgg ci sànci doon ay jigéen te bariwul doole ñu bëgg ku ñu jàppale ci mbirum liggéey mbirum liggéey nag leen rek lay mën a doon ndax doone may ma tey bu subaa man ko mayam bu mi day xëy na neen ñu bëgg nga jàppale ñu ci ay financement ñuy fay di jël di fay di liggéey di indiwaat di man di suqali sunu njaboot ndax ñoo góor ñi ñoo secteur yi tey bu ñëwee fii di inauguré siège modèle dafa nekk histoire parce que léegi englement mi nga naa xam ne Benno Bokk Yaakaar waaye na xam ne modèle mooy ndey Benno Bokk Yaakaar ndax man maay premier partenaire u président de la république ça fait dix ans ñuy ànd modèle moo joxoon APR récépissé ci Dekkal Ngor pour mu dem élection modèle mooy premier membre fondateur Macky 2012 kon modèle mooy ndawi benn bokk yaakaar Serigne Aliou Diouf lu tax ma am ci moom confiance mooy taxaw bu muy taxaw askan wi ndax li nga xam ne ñun bëgg nañ ko régime bi bëgg na ko président la république bëgg na ko ca ñun mu nekk ci suñu programme depuis yoonu yokkute ndax bu leen fàtte ne 2012 man maa doon président pôle programme présidentiel bi bind yoon yokkute muy Sénégal émergent plan boobu xam ngeen ne li ci président gënoon a fonk mooy askan wi taxaw askan wi taxaw ñi néew yi doole ci Sénégal wane na ko ci politique yi nga xam ne ñu koy appliqué muy CMU di bourse familiale di carte d'égalité des chances di lépp li nga xam ne mi ngi koy taxawal ci dëkk yi gox goxaani Sénégal loolu président de la république daf ko bëgg a continuer moo tax muy ñaan deuxième mandat ñu gëm ne nag askan yu xam nañ fu seen njariñ nekk seen njariñ mooy régime bii fi nekk di leen taxaw di leen jàppale nga xam ne Sénégal ko ñor ñu bàyyi ko mu liggéey ngir àggale yéeneem ci réew mi kon maa ngi leen di ñaan fii ci sancaan yi ni ko sëñ Aliou waxe ngeen gagné fi à 80 pour cent pour wane ne ak du gëm ci biir modèle ak liggéeyam ci kanamu ak monsieur le maire am na résultat fii ci Mbacké ndax bu fekkente ne nga am résultat bi fi nekkoon kat kon day mel ni liggéeyu leen kon dama leen di ñaax di leen wax ne li ci ëpp solo mooy ngeen ànd ak yar ak tey bu leen nangu provocation parce que élection du dara day jeex dans une semaine ñëpp dellu seen liggéey bu ko defee bu ngeen di voté ji ngeen votel président Macky Sall. dellu seen liggéey bu ñu tàmbalee liggéey bi lépp loo xam ne président engagé na ko dana ko def incha allah ci sancaan yi waxoon naa fii ci sama meeting ne man maay seen ambassadeur ci wetu président la république danaa ko taxaw wax ci seen intérêt te loolu tàmbali ko ndax am na résultat yu ci feeñ kon maa ngi leen di ñaan ngeen taxaw ci ginnaaw Aliou Diouf liggéey moom ci modèle ngir benn bokk yaakaar mën a am ndam ci biir Mbàkke ak Touba.